xaatim contrat mi ngi tudd Hadiya Hosana foofu la xaatim contrat muy Pape Seydou Ndiaye ñaanal leen ko nag mu doxal foofee ca Éthiopie ñu jugee ci Pape Seydou Ndiaye jël beneen doomu Sénégal di Ibrahima Dieng ñu gën koo xam ci Paoletta gone gi nag daan na football ca AS Pikine waaye kat phase nationale yi nga xam ne moom la ñu génn bu yàggul gone gi moo fa jël meilleur buteur moom ma nga woon ca ASC bi ñu naan Gelewaar Gelewaar nag ma nga ca Ndakaaru gone gi jamono jii dem na ca Géejawaay football club xaatim na foofe contrat jamono jii ma nga ak waa Géejawaay football club ca Touba jallaaw ngir waajal saison bi ñu dëgmal muy Ibrahima Ndiaye ñu gën koo xam ci Paoletta kon ñaanal leen ko mu doxal foofee ñu jugee ci Ibrahima jien ñu gën ko xam ci Paoletta dem ca waa Barcelone fekk fa Robert Lewandowski moom nag dugg na ci taarixu Ligue des Champions li ko waral moo di kat moo di jour bu njëkk boo xam ne def nga ñetti triplé ci Ligue des Champions ci ñetti club yu bokkul ndax moom ba muy nekk ci Borussia Dortmund mosoon naa triplé ci Ligue des Champions ba mu nekkee tamit ca Bayern de Munich mos naa triplé ci Ligue des champions ren jii nag bi mu demee ci Barcelone mu nekk matcham bu njëkk soxal Ligue des champions démb la woon mu triplé bi Barcelone di jàkkaarloo ak Victoria kon Robert Lewandowski dugg na ci taarixu Ligue des champions ndax def na lu football mosul def bi Ligue des champions sosoo ak léegi. ñu jugee ci waa Barcelone ak Robert Lewandowski dem ca waa Real de Madrid xibaar bii nag neexul ci supporteru Real de Madrid yi Benzema xam ngeen ne blessé woon na waaye Eder Militao moo ca toftalu ndax ñoom keroog bi ñuy jàkkaarloo ak Celtic Celtic Glasgow moom mi di doomu Brésil dafa génnoon ba ñu miitaawee rek dellu si wut sax ci terrain bi tey jii nag Marca li mu xamle moo di dina toog juróom-ñaari fan wala fukki fan du dugg ci terrain football. waaye waa Real de Madrid ak gone gi li ñu bëgg moo di derbi bi war a dox ci diggante Atlético de Madrid ak Real de Madrid gone gi fekkee ko football ca match boobee na lu mu gàtt-gàtt dina toog juróom-ñaari fan wala fukki fan du dugg ci terrain football muy Eder Militao mu jógee ci waa Real de Madrid dem ci waa Chelsea ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci Telegraph juboo nañu ak Potter Potter nag mooy tàggat jamono ji Brighton waaye nangu na ngir dem Chelsea wuutu fa Thomas Tuchel mi nga xam ne démb lañu ko dàq ci club boobee bu ñu sukkandikoo ci Telegraph lépp yemb na la ca des ay waxtu yu néew la ngir mu dem xaatim contrat doxal foofee ca Chelsea muy Potter mi nga xam ne moo doon tàggat Brighton ñu jugee ci waa Chelsea dem ca waa RB Leipzig ñoom nag dàqoon nañu seen coach su démb waaye am nañu ku ko wuutu foofee ndax démb ba ñu ko dàqee ka ñu doon waxtaan ak moo di Marco Rose mi nga xam ne moo doon tàggat Borussia Dortmund daaw waaye jamono ji nag agent libre la woon amul woon club jamono ji nag officiel na xaatim na contrat ca RB Leipzig